salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci mercato bi bii nag doomu Sénégal yi rek la ñu koy jagleel Ismaïla Sarr Crystal Palace ñëw na def offre bu njëkk waaye laata ñuy ñëw ci yaatal gi ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné go nga abone bés cloche bi nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk ci ñi koy njëkk a jot. ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi dooree ko ci waa jàmbaar bu ñu sukkandikoo ci la province. jàmbaar ak Marseille dafa am benn contrat boo xam ne xaatimoon nañu ko muy lan gone goo xamante ni jàmbaar moo la tàggat maanaam moo la formé laata jàmbaar di ko jaay waa Marseille ñoo koy jënd suñu bëggul waa jàmbaar door a jaay contrat boobee nag soo moytuwul dinañu ko dakkal xibaar bi ki ko xamle moo di la province ndax contrat ba ci weer wii ñu dëgmal lay jeex te loolee nag soo moytuwul duñu ko renouveler maanaam duñu ñu xaatimaat beneen contrat ndax Marseille kat càmbar na xam ne cent mille euros yi nga xam ne at mu ne dinañu ko jox jàmbaar ñoom gisuñu ci seen bopp mille euro nag du lu ndaw ndax boo ko calculer ci xaalisu franc CFA dina toll ci 525 millions ak lu toftal loolee waa Marseille nee nañu dafa xaw a bari lool te ñoom gisuñu ci seen bopp kon contrat bi soo moytuwul dañ koy dakkal xibaar boobu la Provence moo ko xamle jàmbaar nag mi ngi fii ci Sénégal nekk ca Mbour waaye jamono ji nag soo moytuwul contrat bi dox ci digganteem ak Marseille dañ koy dakkal ñu jóge ci waa jàmbaar ak Marseille dem ca waa jaraaf ñoom nag ña ngay yokk seen dooley club boobee tey jii am nañu gan gan ga ñu am moo di faali ndaw ma nga jógee ca géejawaay football club gone gi nag millier de terrain bu mën la muy def la waaye nag saison bii ñu dëgmal ca jaraaf lay football jaraaf nag ma nga ca Médina kon jamono ji waa jaraaf seen yaram dafa tàng rawatina seen directeur sportif bii di Cheikh Sidi Ba moom nag consultant la woon ca RTS jógee ci waa Médina jël doomu Sénégal bii di Ngagne Fall moom nag ma nga woon ca Maroc ci club bii di Ittihad de Tanger foofee la demoon di def test test test boobee nag réussir na ko maanaam xaatimal nañu ko fa kontra moom ci fàttali saison bii ñu génn ci Sénégal moo jëloon meilleur buteur waaye nag dafa tolloo woon ak Bouli Signor Samb ñoom ñaar kenn ku ne ci ñoom dugaloon nga treize buts ci championnat bu Sénégal waaye moom nag jamono ji ca championnat bu Maroc lay football ci club bii di Ittihad de Tanger foofee la xaatim contrat wu ñetti at gone gi kat essai ba mu fa doon def doy na waa club boobe ba jël nañu Diagne Fall jeexalee ko ci Ismaïla saar moom nag waa Crystal Palace démb ñoo ngi leen doon wax ne waxtaan bi door na seen diggante ak wat Watford ngir ñu jënd doomu Sénégal bi tey jii nag yóbbu nañu seen offre bu njëkk offre ba ñu yóbbu nag mi ngi toll ci vingt cinq millions d'euros waaye Watford kat dañoo gantal li ñu xamal waa Crystal Palace moo di gone gi li ngeen ci fay tuuti na lool doomu Sénégal bi duñ ko jaay ci vingt cinq millions d'euros loolee dafa ndaw lool waaye foot mercato nee na kat waa Crystal Palace taxul ñi bàyyeeku ndax gone gi ki ko bëgg moo di kay tàggat Crystal Palace di Patrick Vieira li mu bëgg moo di